man du graw trop quoi ak lu fen graw graw di yëngal awras mais nit koo xam day wax ci wal fajiri dafa war am numu mu war mel warul fen parce que télé bi ni mu bindoo Omar Sall lépp lu mu wax ci ay texte la parce que moom comme li muy wax ci droit ay textuel yow ba ta xam kullu bi Omar Sall nga xam mom rek la xam ci àddunaam loolu est ce texte la bu wér bu baax kulli yëpp muxayyat la wala kulli yëpp mutlaq la wala kulli yëpp am la wala kulli yëpp am naa amul maxsuus Pape musaa saw bàyyil fen naka jekk da nga bi ngay góorgóorlu di jéem a wax dëgg sax man doon naa dutewu ci yow ko mais Baara bés wax nañu fii démb envoyé naa ko audio ci su groupe bi Baara ne kii ngeen gis mun naa moo dàq fen Cheikh Yérim ma ne ko mu ki dàq fen nak moy ko xamne day dugg ci domaine bu mu xamul nàmpataluñ ko ci yaruñ ko ci maggu ci amu ci yitte mu cay wax benen li ci dess ginaaw kullu bid'atin dalaala al bid'a mustah al mustahsana bi Omar Sall dëkkee weddi lol texte bu wér yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni mom mo wax lépp man sanna sunnatan xasana ak sunnata sayya wala boog sanna sayya ak sanna xasana léegi yonent bi day fen quoi Omar Sall moo wax dëgg parce que kenn rawu ko wax musaa saw yow génn nga complètement ci diine ji beneen bi ci des Omar Sall wax gi mu wax ne Cheikh Ahmed Tidiane mi sell la tuddoon tuubeen la loolu texte la quoi Omar Sall wax bi mu wax ne amul fenn fu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ay saxaabaam di jàngale alquran nit ku dee tas ko ay xaaj amul yool loolu texte la quoi dëgg la te yonent bi indi ci alquran ak ak ak surtout yaasin sax jël jël ay parti ci alquran ne nangam boo ko defalee ko faatu yonent bi waxul dëgg kii waa ji saw Omar Sall la wax dëgg Cheikh Tidiane misel la tuddoon loolu dëgg la jàng saat faatixi wax laa ilaha illallah ci jàkkaar bidaa la wala dafa xaraam et cetera Pape Moussa Sow ñun bu ñu sañoon ñun ñi nga xam ne dañuy noyyee Walfadjri comme danga fay wax ñu la fay gis ngay wax dëgg parce que Walfadjri benn fenkat laa fa xam actuellement yow la ki nga xam ne moo la njëkkoon mooy yi noonu xaw ma APR ko yónni ramatulaay saar bàyyi na keneen ko fa des mooy ku góor ku dof kooku rek bu nekkee dangay ngay fen mën nga génn Walfadjri nga dem TFM wala nga continuer ci site bi nga nekkoon bi fen nga fen Omar Sall mbaam la idal kalbu nag lam yen box lam yudika illa bi nabxi fa daxu yen box ila yowm alqiyamat yen box idal kalbu ndem xaj lam yudika du la lor illa bi nabxi lu dul di bëw rek ne fa daahu bàyyi ko na nga bàyyi xaj ba ila yowm alqiyamati yen box ba ëllëg yowm alqiyam muy bëw waaye wallahi laqad rufiat rayaatu uslubi cheikhina wa man shaa fal yu'min wa man shaa ankara Seydi Hadji Malick neen laqad rufi'a yëkkatiku na waxul sunu sang sunu sëriñ yaakaar tey ëllëg di sunu sëriñ muy Cheikhu man shaa fal yu'min wa man shaa ankara Seydi El Hadji Malick Cheikh Ibrahim Niass maam Ahmadou Ndak Cheikh Abdou Salam Guèye anhu Cheikh Omar Ndaw si alaaji Sëriñ Wuli Touré et cetera Madaar Kalla Koungheul mi Mouhamad Lamine Dramé sama maam Thierno bii ci àndulaay et cetera wadifa di xadara ba xëy ne rëkk ci yàlla plafonné commencé la taxaw am lu muy critiqué Pape Moussa ngay wëy rek di bëy mbote si bëy wala xale xaj taxaw daan Omar Sall ñi ko raw ci dëkk bi bëriwul parce que li muy wax dafa teg situé man de bis ni ki tey lépp loo waxoon lu rafet yi Sonko ak lu ma koy sopp gëmatuma ba keroog keneen waxaat ko ma gëm ko parce que fenkat la te yonent bi nak nee nga tuubaat parce que julit yàlla mën nako nat mu fen mu mu sàcc yàlla mën nako nat mu ray nit yàlla mën nako nat mu njaalo waye yàlla du ko natt mu fen parce que al al muminu la yakdi parce que fen day tasriw réew day taar réew waaye nag walaa tuti kulla fi mahili hammaazin masha'im binamim mana'a lil xayri mu'tadin athim mu'tilin ba'da daalika zaniim ان كان ذا مال وبنين اذا تلا عليه اياتنا قال اساطير الاولين كي لولو عمر سالنك ان ديننا نك مبني على النقل ما لا على المناسبه العقلي ما سالي سي خلام رك دستور جامول خمول دا بودي احمد لو جانغنا واي دا فا جاي دينم جاي غوروم جاي ليرام جاي دغم جنده كو فن جنده كو لن سيرين توبا نينا من باع نورا بدجا فسيندم سين فيناسما يي مولن تخ ني ملني ني مل ديكو واخي lii nag maa la koy adressé directement Pape Moussa na nga ci génn te na nga ko tuub parce que fen wu rëy rëy la Omar Sall jàngul ferul ij te billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa fer ij yi nag waxuma mooy xam liif laa miim naa nga koy mooy nga bind lettre jox ko mu maas ko te du ko yàq wala mu jaam ko te du ko yàq Omar Sall mënu ko yéen ku gën a réew ngeen ne moo wax dëgg nag lii waay li ma gën a métti mooy li ñu lay gis wal fajiri te yow fenkat loolu dafa maa métti Mansour Sy bi muy nekk fenkat ma gis ko wal fajiri dafa maa métti man su ma sañoon fenkat yëpp dañuy nekk ci l'autre site wala ci yeneen télé yi bàyyi wal fajiri bi moom ñun li mooy lan